jël bi ma naan dinañ ñam ci dialogue bi ak li weesu. Mm. daa am ku ma waroon a jël te jotuma ko mujjee naa koo jot. jot ko waaw. yooyu nga xam ni dañoo nekkoon di liggéeyal réew mi bu dee gis nga ci réseaux sociaux yaa ngi gis seen vidéo yi seen jàppante yeeg seen li ñuy revendiquer daanaka ay at a ngi nii. am na ci koo xam sax mujj naa jël beeke bi mu jëloon maanaam kii bi lim. Euh, déedéet euh, kii tànk bi. waa protège tànk bi. da ko mujjee génne ne ko mu ngi nii su fekkee lii nga ma joxoon yow président Macky Sall. te nangoo taxaw ci suñu soxla sa prothèse ngi nii mu mel ni loolu la doon mottalikoo pour mën a dox léegi lu tax nag ñoom ñi woon daanaka tuur seen deret ngir drapeau Sénégal ñenn ñi ñàkk seen i tànk ñenn ñi ñàkk seeni i jëkkër ba léegi daal li ñuy joytu mënuñu ko saafara man problème jaaxal na ma kenn ci ñoom nag Ousseynou après moom la ñuy woo parce que gis naa seen vidéo boo xam ne ña nga ci buntu ab commissariat la xam ab police daal di gëmaxanteeg risque mënu ci am ndax ay nit yoo xam ne xam nañ arme yori arme di ba ma xante ñu bàyyi leen ci réew loolu daal defe naa warees nañoo xool lan moo ko waral mm-hmm. Ousseynou maa ngi lay nuyu waaw a baax am nga jàmm ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah aywa balaa lenn xew ma bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi après ñu ñëw ci waxtaan wi waaw sama bi ñoo ngi nuyu Sénégal bépp man la Seynou Fall ancien militaire invalide du Sénégal mm-hmm. bokk association bi naan ANAMIS. Mm-hmm. moo ëmb bépp invalide bépp homme de tenue boo xamante ni soloon musoon nga sol tenue muy militaire muy mm-hmm. corps militaire corps paramilitaire mm-hmm. nga nekk nga nekk invalide mm-hmm. euh, te nekkatoo te nekkatoo ci armée bi ñoom ñoo la ëmb association boobu moo la ëmb voilà Ousseynou euh, yéen defe ñëw ngeen fi ay yoon yoon fii ci Walfadjri dalal nañu leen mais problème bi ma am ba léegi saa yu ma gestoo ci réseaux sociaux yi gis leen ngeen di ñaxtu gis leen ngeen di jàppante ak ñu leen di dóor léegi seen mmh. problème lan la ak lu tax mënta saafaraw lu ne ci biir lan la. ah suñu problème sooy bu xam nga président dafa joxe ndigal. Mmh. taxawal commission ad hoc ko signé quatre points yi ñu diggoon ak moom yëpp ñu waxtaane ko. Mmh. signé ko ne pour ñu régler suñuy problème définitivement soo xoolee discours président journée de forces armées bi passé. dafa def discours ne réglé na problème mu invalide yi. moom nag mënul nekk dafa nekk kilifa réew mi. Mm-hmm. su joxee nag ay ndigal jox am ñu mu ko jox pour ñu war ko doxal su suñ ko doxalul mm-hmm. sa ña mu ko war a jox mm-hmm. su déggee ñooñ di ñaxtu moom war naa jug soldalam woo ñooñ ñu toog mu laaj leen li ngeen di ñaxtu lan la parce que seen problème réglé naa ko ña mu ko sant nag defuñu ko ok parce que seetlu ngeen euh, décembre diir pas génne na woon benn communiqué daat ne problème mu militaire invalide ñoo leen di fay waaw soo imagine toi décembre ba tey janvier li nu fay matul sax moitié li nu ah. fay matul sax moitié te xaalis bi génn na ba pare te xaalis bi ñoom ñoo ne xaalis bi mat na ministre de force armées moom moo toog ak ñun ne xaalis matul woon lu mu ne xaalis matul danoo ànd ak yar mhm. ne ko kañ lay mat mënuñu avant le dix décembre lay mat xaalis dina mat mhm. ñu toog muñ ba le boobu ok gisuñu lu dul ñu jox ñuy bàyyi ñi waaw ba pare suñu pharmacie tegle grève trois mois yoo xamante ni joxewuñu garab lundi lundi lundi lundi démb. Mhm. bari bari démb si leen commencé joxe te lu ko waral mooy génn bi nu génn. Mhm. li ñu jaaxal nag mooy ñun pour pourquoi ñun balaa ñoo régler suñuy mbir il faut ñu génn si kaw talib te ñun loolu neexuñu génn boobu neexuñu. Mhm. lii daal moom moo fi nekk. vidéo bi ma gis barki démb ngeen di buuxante ko euh, homme de tenue loolu fan la woon. boobu buntu ministère des forces armées la ñu demoon. ok ñun ay soldats la ñu. bàkkuñu nag ñ danoo bëgg xam ni ñoom comme de tenue yi ñuy yebal si kaw terrain bi loolu leen jàngal ñun loolu ñu jàngoon. Mhm. te loolu moo nekk suñu bopp tey. ok parce que ñoom amaana ñoom xaaruñu ñu woon foofu. Mhm. xam nga bi ñuy dem ministère des forces armées romb nañu buntu palais. waaw romb nañu buntu palais. parce que ministère des forces moo ngi nekk moo ngi nekk soo si euh, soo passé. côté euh, côté assemblée nationale. waaw da ngay romb palais romb nañu palais romb nañu assemblée nationale. Mhm. dem foofu. ok lanu fa yóbbu nag mën nañu yóbbu feneen ak feneen te bëgguñu àgg foofu. te yàquñu defuñu dara bi ñu ñëwee nag yegg si ba ko hmm. wax dëgg neex yàlla ñuy nuyu autorité police. d'accord autorité police. Hmm. ñoo ngi leen di sant bu baax parce que ñoom à chaque fois dañ ñuy jaxase ak ñoom. Hmm. suñu autorité militaire yi. ñoom ñooy def leen neex a pare ñun suñu génnee di ñaxtu ñu bàyyi ñu policier si kaw si kaw tali bi du ñuy gazé mais cette fois ci nag police dafa comprendre parce que fay ñuy bàyyi ñi dafa teguwul fenn. déedéet waaw moo tax commissaire commissaire Simal koy. ñu ngi koy nuyu ak lieutenant Sagna bu bu bu intérieur. parce que ñu leen nuyu nag. Mm. parce que ñoom même suñu gazé woon tamit. lu mm. tee ñu nuyu leen sant leen parce que seen liggéey rek la ñuy def. na solo parce que li ñuy xeex nii. Mm. ñoom dañ see am wàll parce que am na minute am na invité yoo xam ne ay policiers lañu. waaw te ñoom suñuy biir. d'accord. voilà lii daal moom moo fi nekk. baax na Ousseynou bi ñu ñëwee nag fe fekk ñu fa ministre bi ko ne Alpha Sall fa fekk. bind nañu nag fi mu toll nag bind nañu autorité yëpp bind nañu leen instant bi. d'accord démb la ñu yëpp. ku nekk bindaat na la bind nañ sot président. pour hmm. toog moom parce que réew mi toll na foo xamante ni soxlawuñu xuloo ñu xeex mais nag suñu amul genn cause nag dinañu dinañu gisaat si tali bi te te bëgguñu àgg foofu. baax na Ousseynou kon njiitu réew mi dégg na la kilifa yi dégg nañ la jërëjëf. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup mi ngi noonu ma jigéen Ousseynou la bokkoon ci ñi nga xam ni euh, tenue la sonaloon Sénégal doon dafa défendre drapeau Sénégal ba ay jafe-jafe fekk leen ci ñoom nag ñu dajaloo nekk kuréel goo xam ne ñoom ñëpp dañoo daje li ñuy revendiquer ba léegi nag ay attaques yi nii nee nañu président Macky Sall joxe na ko waaye ña ko téye ñoo ko joxewul waa xam naa ko mi ngi koy dégg nag moom xam naa balaa dem dana ko joxe dana ci taxaw mu réglé wu waaw ah, mu nekk lu doy waaw man mii di wax ak yow am naa si beau frère bu nga xamante ne ci ñoom la bokk. ah oui waa ci bu Cees bi sax daanaka moom moo leen jiite. Mm-hmm. Euh, boobu ba tey nag ñi ngi daw ñoom lu yàggul dara invité woon nañu leen takk show ñu ñu ñëw di di wax li ni mel que xaalis bi jotoon nañ ko débloqué problème bi ci affaire ministre bi la nekkoon. Mm. ba ñu waxee loolu ba pare. Mm. Euh, ci boobu sax commencé woon nañ di fay ñenn ñi après ñu taxaw. Mm. bu ñuy ñëwee waxaat après si bi mi ngi commencé affaire yi taxawaat. kon problème bi jàpp naa ne sa peut-être Macky moom la mu warloo woon ak ñoom def na ko mais yëglu bi tamit baax na su ko defee autorité yi ci kaw mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a génne xaalis bi la parce que am na ñu ci jot a fay ba pare. d'accord voilà. Ndiogu waaw macha allah maa ngi benn waaye bu ñuy wax Abdou Ndiaye xaritu Matar saar la ca. Touba Touba. Mhm. Euh, di ma wax ne ma sëriñ bi Matar Sarr xam nga la kooku caaxaankat la voilà di wax ni. Mm-hmm. li xew nii euh, jëm ci li nga xam ni mooy militaire invalide yi mm-hmm. lii moom defe naa ni depuis mille neuf cent euh, kii ba nëga ni mi ngi fi mm-hmm. waaw loolu nag du encouragé ñi ne ci armée beeg ñi ne ci kii yi parce que ñii tey waruñoo nekk ci mbedd mi déedéet parce que euh, seen nekk ci mbedd mi mm. day tax ki nga xam ne tey mi ngi exercer métier mi day wax ne waaw man bu ma ci lii dalee kon mbaadu fii laay mujj wax nga dëgg de loolu baaxut loolu mën na tax sax hmm. ñu ne est-ce que jarati na ko wax nga dëgg de parce que am na ñoo ñoom ñëpp li tax ñu perdre li ñu perdre tey hmm. ci service u réew mi la woon waaw kon donc réew mi waruñ leen a bàyyi parce que lii ñuy def nii hmm. du toroxal leen ñoom déedéet toroxal réew mi la si réew mi ci boppam ngay toroxal donc defe naa ni lépp lu leen di wekk lu leen di yëkkati mhm. dañ cee war a taxaw mhm. waaw parce que nañ xam ni lépp lu leen dal mhm. ci réew mi service su réew mi lañ nekkoon ba li leen dal dal leen kon dañ leen a war di xool bët boo xamante ni da nga leen a waroon a xool sax ñee leen wallaay wallaay mais waroo leen a xool. di leen ah, ku ci am jafe-jafe ci ñoom da nga koo war a ñee. waaw da nga koo waroon a ñee. waaw daal ne ah diw de gis nga li nga xamante ni bii moom la ko réewam defal ginnaaw bi am na jafe-jafe de waaye gis nga li ko réew mi defal. dëgg la dañ leen a waroon a ñee quoi mais bu ñu nekkee ci mbedd mi ñu di leen gazé que def yenn affaires yi. Mhm. donc te ki leen di gazé sax ëllëg si biir rek mën naa basculer. wallaay ci boppam ñëw bokk ci ñoom bokk ca mbir ma. waaw donc il faut que ñu. maanaam ki jàkkaarloo ñoom toujours mën naa ñëw bokk ci ñoom. mën naa ñëw bokk ci ñoom. Hmm. donc il faut que yenn yi euh, ñu delloo siwaat xel yi te xam ni. waaye xam nga waa ji balaa dem war na leen a mën a lijjanti de. waa ji. Hmm? diggante bi man damay ragal diggante bi kay moom waa na téye réew tuuti rek parce que. mu hmm? ngi ci yoonu wàcc. non non léegi damaa bëgg bala moo dem mu recevoir alaaj mën ngaa génn romb état bi fii mu naa état. <laughs> état baa ngi for moo dem alaaj alaaj damaa bëgg bala moo dem mu recevoir ñii. li jënd seen problème. waaw waaw comme que nee na daal ci yoonu jàmm la ne. waaw donc lii moom ñoo xam nga ñii dañ leen a war a defal statut yoo xamante ne bii sony bu. Mhm. maanaam waruñoo am jafe-jafe. déedéet. waaw parce que service su réew mi lañ nekkoon quoi ba am ay jafe-jafe. baax na donc waruñoo am jafe-jafe quoi maanaam. Hmm. dañ leen a war a wekk respecté leen foo leen fekk. laala nee na ngeen génn. bu yëf yi di demee nii mooy. nee na ngeen génn. waaw moom ay waxam la. laala nee na ngeen génn. waaw laala nee na ngeen génn. laala waxoo ko. lala so ñoo bokk baay waaye kee sama ah ñoo bokk baay léegi nag da ngay jël doomu baay di ko jëndee baay ah xam